waaw tonton. sànq ba léegi ngi ñuy wax nag Sonko jàppal Sonko bàyyi Sonko nga bëgg Sonko Sonko de lu tax ma bëgg ko. man euh, man li nga Sonko sax parce que man Sonko rek ma Sonko fu rek bu rek ma euh, ma la. man sama euh, mom la mës xam mom la mës andal deug la parce que bi may nekk jeune ñu tayu ablay wad Wade dañ xamoon ñu topp ci euh, top ablay wad bani sonku di genn mhm. ba ni Ablaye Wade di wacc mhm. ablay wad la andal buguma kenn ku ablay wad mais ba Sonko génnee dafa melni dañ ma raxas ci ablay wad ba ñu mën ablay wad bëgg na ko loolu dafa xam ne jeex na mhm. mais ba Sonko génnee dafa melni dafa am benn lu ñu yàlla indi te tam da ko wane parce que dafa joxe dafa génnee discours yoo xam ne alors euh, man euh, yàgg naa nekk ci Sénégal nekk mag xam mais discours bi musuma ko dégg ak politicien di ko wax amul musuma benn politicien di ko wax te li man gën a neex ci moom dafa nekk koo xam ne dafa ñëmé ci limuy def lo xamné ne benn politicien ñëmu ko na wax dëgg te Sonko da sa sa ko wax mhm. xam nga ku tok ba yaangi défier mhm. occidentaux yi rek mhm. xamal ne ki nit la ko xamné ku dëggu la te parcours dañ ma koo nekk ni mom ci bop mu wax damay déglu ay vidéo ay nit ñoo xamné dañ koy témoigner di wax ba muy nekk euh, inspecteur des impôts liggéey bu mu daan liggéey ñi ñu ñëw ci moom car caractère bi mu doon won ma xool ci loolu yëpp yëpp hmm. yëpp yëpp mu nekk nit ku jullite hmm. loolu moom ma gën a neex ci soosu te nekk xam ne ku dëggu hmm. yàlla def ko nag sama sama xol xaw ma lan la man daal mënuma la xol mais euh, Sonko yàlla da ko def sama xol de telle sorte que fi nii actuellement euh, man bu jëlee kàddu rek bu ne salaamaaleykum rek ma jooy dëgg la waaw ndax mbëggal gi ma ko bëgg di ñaan yàlla nag dañuy li ñuy bëgg rek li ñu soxla ak population bi yàlla na ko yàlla dégg. amiin amiin waay yàlla na jël réew mi. amiin amiin waay. te yaakaar naa ne bu jëlee réew mi. man de am naa yaakaar ci moom. waaw dëgg la. parce que am na yenn yoo xam ne nit bu koy def. Mhm. di ko wax. Mhm. te mosuñ ko dégg bu di ko wax. Mhm. yaakaar nañ ne kii bu jëlee réew mi dina am sens. dëgg la dëgg la te man li ma intéresse rek mooy rek. ñu mbir mi mooy li mu wax ne pouvoiru. Euh,

mbéy ma dina ci dina ci ab ab apparence nañ ko waxati sax appesantir bu baax a baax baax. yàlla bu yaakaar tas tonton yàlla bu yaakaar tas te liggéey nag euh, kii nu mu tudd dañ ko waxati emploi mhm. emploi rek ça dépend ci ni ñu ko waxati sax les entreprises. non mhm. non non kii naa ni ñu ko waxati sax. entrepreneur les entrepreneurs. Euh, léegi nag mhm. ñun jël na toppatoo. ñu mën a implanter ay ay ay ay ay usines. liggéey euh, Sénégal mën a dox. parce que même boo demee ci pays euh, euh, occidentaux yi loolu la. loolu loolu fi nekk. dañuy environnement bi baax dañu leen a jàppale bu dee telle sorte que fi ñëpp ay liggéey. loolu rek laa doon loolu daan wax. di ko ñaare rek yàlla na ko yàlla jàppale. amiin amiin